Moustapha ñu ngi mon maa ngi lay fay lu bëree bëri. sa président fii sa wàllu waaw tey dañ fi am prestation war a ñëw def si playback. waa wàllu famille di sargal suñu papa sunu maam koo xamante ne lu nekk def na ko pour Sénégal lu nekk def na ko aussi pour Afrique kon ku ñu war a sargal la kon suñ ko dee sargal buñ ñu si invité war na noo mën a teew loolu la waral suñu teewaay. voilà en tant looy mën a wax quoi si loolu. waaw mais loolu mbégte la ak contentement parce que ñu ñëpp ñëw bokk ndey bokk bàyyi kon fii suñu kër la buñ fi ñëwee war nañ fee mën a ñëw loolu war a suñu teewaay. Hmm. Uh-huh. voilà soxna Moussa Faye yaa ngi génn moom sa benn single euh, tur bi laa faat tur bi. joli kër. joli kër mu def boom. ñëpp ñëpp bëgg ko quoi ñëpp dëkk bëggee. si si. voilà mais la ma nekkoon secret joli kër. waaw mais secret joli kër du dara lu dul liggéey rek parce que tey boo xoolee ak Prince liggéey bu mucc ayib lañ ci def liggéey bu jaar yoon bu am solo loolu waral nag bi mu génnee gars yi bëgg ko mais nag xëy na suñu borom la neex rek gars yi bëgg ko du force nag parce que nit génn na fi way ba sonn kenn déglu ko nit génn na fi way ba sonn gars yi bàyyi ñu ko xel mais nag sant yàlla la ñu génne dara ñi ñi bëgg ko aimé ko ci presque pendant deux semaines trois semaines ñu yegg si deux millions de vues loolu sant yàlla la. est que euh, est-ce que mën nañu laa xaaral si benn single wala affaire waaw bien sûr incha voilà lu tax lu tax euh, ba nga commencé def si single solo ba léegi yaa ngi presse art maintien bi nga maintien euh, li nga nekk biir presse art la mooy la fa bàyyi boobu. waaw mais liggéey rek moo ñu fa bàyyi liggéey parce que tey nit boo nekkee ci bërëb di liggéey liggéey am solo et aussi respecter sa liggéey yaakaar naa ne foofu maanaam sunu borom mën na la faa defal sutura mën na la faa defal xéwal et aussi presse art dañ ñu comme ni ñu war a téye def ñu seen i doom def def si li nga xamante ne mooy suñu métier li ñuy def kon tey nu fa nekkee war nañ faa mën a nekk parce que peccum liir bu neexee day jaatee ci mbagee waaye vraiment. ok nit ñi nit ñi dama yem dégg nit ñi dafa euh, ni ngeen demal seen bopp quoi parce dañoo bëgg ngeen quitter presse à ah, demal seen bopp euh, euh, lay wax di ñooñ di wax loolu. amee ah, nit ñi seen xalaat la ñuy wax rek seen xalaat la ñuy wax tey jii nii boo xoolee kila yar. teete la ba nga màgg. boo ko defalul kon waroo ko xarab. te tey ñun nu nu mel c'est grâce a Prince Sarr kon tey ñun fa la Tata Ngoné mooy suñu yaay vraiment Prince Sarr ñun suñu suñu suñu kër la bokk waaw. voilà soo xoolee paase soo na mariage avant-hier non week bi passé yéen ñëpp yéen a foon quoi si complicité bi lan la entre les membres de seen brigade. waaw parce que dañoo bokk ndey boo ko bàyyi ñu ñëpp maanaam presque benn lañ. maanaam boo boo balaa nga doon xam loolu nga laal ci kenn boo ci laaloon kenn léegi nga xam ne ñun ñëpp ñu bokk ndey baay parce que on est des frères et sœurs loolu moo am solo tey jii nii nekkatuñu ay ay ay nit yoo xamante ne compétition moo ñu boole non dañoo bokk ndey bokk baay. voilà boobu noonu lu ñu war la nag suñu suñu suñu cër la ah. voilà de de xool soo xoolee des fois critiques seen kaw seen seen prix gàll yi naan Tata yi xale yu jigéen surtout xale yu jigéen ñi aussi. non mais gars yi la ñuy wax rek prix gàll yàqul kenn au contraire da jógee baax prix gàll bu kon ñun ñu yàqu mais au contraire da baax dañ lay yar teete la defar la ba nga baax macha allah. ok ñu lay jaajëfal. jaajëf mon frère merci beaucoup jaajëf.